ñu ñëw ci leçon ñaar fukkeel bi ak ñaar euh, su ko defee muallif bi rahimahullah wax ne euh, fa qaala lahu saahibuhu xam nga ca bi ñuy yëkkati jataay bi ci alxames bi weesu ñu ngi yemoon fi nga xamante ni góor gi toog toog na ak ki nga xamante ni moom mooy doomam di ko laaj naan ko naan ko hmm, lan mooy ni nga xamante ni noon nga bëgg a doxale wala boog noon ngay doxale sa digganteeg sa maas ak ñi nga xamante ni daal say dëkkandoo lañ xale ba daal di koy tontu tontu loo xamante ni wax dëgg yàlla jikkoy xale bi ju rafet feeñ na ci te mooy lan noonu ko aral jaara walaw jaara wax ko dal ay jikko yu rafet rafet rafet yo xamanteni non la fassiyene doxé ak digam ak nit ñi ta moy ñi nga xamne ne ay moromam ak ñi nga xamanteni ni ay dekkandoo bu doon lo xamanteni kep ko xamne jikko ju rafet mom mo la ñor ta moy baña a lola ca ngay and waaye nak ñu déglu kon liko gor gi tontu nena fa xaala mu di ko sahibu moromam ma waaye def see jublu góor gi nga xamante ni moo doon waxtaan ak xale ba rek ne ko wayka ay gora yow yaa bu nay yow sama doom innamaa yu dannu bi dan bi daniini wa yunaafasu fi samin innamaa yu dannu naka def na nay bi ci aji nay wa yunaafasu te dee fi ëppalante fi ci aji foor ki nay lañuy nay ci moom waaye ki ñu ëppalante ci moom kooka mooy ka nga xamante ni mooy ku for dafa dafa ko bëgg wax ne ko daal ni nga bëgg a doxee sa àdduna boo ko doxee doo wéy ndax jamono ji ci boppam moo bindoo noo xam ne ba yoboo ku nekk rek na mu mel nga ànd rek moom noona kenn ku nekk na mu mel nga jéem a ànd rek moom noona mu ne ko waaye laakin waaye nag ana man la ati duma dikal ati mu ndare aji ak man xeeral mu ati ndare aji depo ak man manam dal man duma seetu mukk koo man ak moom duma man ak moom déggoowunu wala asimu duma màngaari duma mandargal itam al ati aji beew jam bi mura ati ci sama manam ko xamne dafa bew top bakkanam di def la neex koku duma am jenn ak jo xamne dama koy sam sama digeunte ak mom dere wala usafi wala usafi duma selalante qarit man ko xamne ya aba day bañ dana bañ insafi sama manu, insafi sama man li tuddu moy. jullu mooy dal, xam ne daal euh, maanaam jox sama ak ba ma sekk mom koku duma ma nek a dama jema xarit ak mom di jema selalante ak mom ak xarit dedet waaw ginnaaw daal nanguwumaa jox sama àq ba mu mat sëkk na dem ma dem wala awaax yi du ma jéem a mbokkonteeg man yulxi koo xam ne dafay wàcc al awaax yi kóllëre koo xamante ni boo jàppee moom kóllëre mu wàcc du sàmm kóllëre du jàpp kóllëre man du ma jéem a xaritoog moom wala may jéem a mbokk moom xalaatuma ko wala umaali du ma lënkonteeg man koo xam ne yu xëy bu dafay tas amali sama yakar ko xamanteni manam suma ko yakare mu tas sama yakar koku duma duma jek di jéem a ak mom and di and ak mom wala ubali ta duma faale tam bi man ci ko xamne sarama dokna na sama samay wa ko xamanteni manam buma ande ak mom mu mu fecc sama wala dok sama bumi ko le koka duma duma ko faale duma yek sax ni mi ngi wala udari ta duma wëndalante man ko xamne jahil jahila réere na sama daraja Manam duma nek di jema masla ko xamne suma ande ak mom itam mom ci bopum xamul sama daraja xamul sama daraja ndax xam nga ki xamul sa daraja mom dula ma sa meuna jox sa daraja mom. waaw ki nga xamne dafa sa daraja dula dula jox mukk sa daraja mu ne kon nak kon koku duma jek di maslaante ak mom ak di jema a ak mom dedet comme xamul sama daraja kay du ma ànd ak moom wala oxtiya du ma joxe jox sima zimaam yi sama nos man yox féro zimaam yi koo xam ne daal dafay fecc fecci koo xam ne dafay fecc samay kóllëre koo xam ne daal day fecc kóllëre daal man du ma du ma jël sama nos mukk di ko jox naan ko waman ma waaw wala abzul duma jox wi daa di sama cofeel li at daa di ñeel samay non, maanaam sama non duma ko ëmbal dara dara dara ci cofeel waaw sama non dal duma ko ëmbal dara dara dara ci co ci wala ada uduma tek i aadi sama tekku lil muadi ñeel aji nonon ja manam ki nga xam daf ma nonu duma ma yem sax ci bañ ko sopp waye damay damay damay fex jamono ju nek mu koy tekku dama koy tekku ndax bañ mu bañ mu ma xam nga li gën a métti mooy noonu boo la ñemee am noon moom fi ne bu fekkee dala daf laa ñeme moom moom du la awaleel yoon moom moo tax nit ki moom bu la bañee tam la gën mooy nga fexe ba mu ragal la tamit waaw du la ñeme waaye fekkee daf laa ñeme boole ci moom du la awaleel yoon moo tax mu ne wala adahu iaadi lil moaadi maanaam ki nga xam ne dafa noonoo ak man du ma yem ci bañ ko rek bañ ko ëmbal cofeet rek déedéet waaye damay damay euh, damay damay nekk di ko tëkku ngir mu bañ maa ñeme mu ne wala axrisu wala axrisu duma ji al ayaadiya xéewal ya fi ardil aadi ci suufus noonu ya maanaam samay njariñ ak samay xéewal yoo xam ne daal dama koy jox ñi nga xamante ne maanaam ba ma ko dee joxe samay soppe laa koy jox waaye du fekk mukk samam noonu ma di jox samay xéewal xalaatuma ko wala asmahu duma tabi bi ma waasaati ci sama ci sama ndimbal li ma ñeel ko xamne yafrahu day bek bi ma saa ci sama naqar ko xamanteni suma amé naqar am gi ma am naqar da ci da ci contane bek ci koku duma tabé mom ci mom mukk di ko di ko di ko dara wala ma di ko dimbali wa duma dimbali go xamne suma amé aw naqar ami jafé jafé mu bek ci koku duma la dimbali dedet wala tifati ila man yasmatu bi wafaati wala ara gisuma iltifaati sama gestu ila man jëm ci ko xamna yasmatu yasmatu fay ndokk bi wafaati sama faat ko xamne ne suma faatoon mu ne ndokk bekk ci contane koku duma ko gestu wala may jema a séq dara wala axusa bi hibai illa ahibai manam manam sama sama tiofel dal sama bëgg dal euh, ñima koy jaglel moy ñi nga xamne dañ ma sopp kuma bëgg ma bëgg la waye bañ dama lay bañ de waaw daa mel ne moom ab la nee na wala axusa bi xibaayi illa axibaay mu wala astatibba li daa i xayra awi fajlo sama jangoro Lumai may ñi nga xam dañ maa sopp ko wax ne dafa maa sopp daal su yow koy faj Wae nag du ma dem fukk mukk ci am sama jangoro wala umaliku du ma sama xaritoo man ko xam ne laa yasudu samay aajo manam ko xamne suma soxla ma ma fajal sen aajo koku duma jema euh a e, di xaritok yow wala aw duma selal euh selal ni yetti sama yéeneen li man ñel ko xamne yata man na da fay mebet man yetti sama faatu ko xamne manam li ngay mebet moy ma faatu nga xamne bo sañon ma faatu yéen ju ñaaw joon nga am ci man suma sañon yow itam yow itamit du ma la duma la selale yéene mukk waaw du la yéene mukk lu lu baax ginnaaw yow lu bon nga ma yéene kon lu bon rek laa la yéene waaye du la yéene lu baax wala oxlisu duma ma selal du aay sama ñaan li man ko ñeel koo xam ne laa yu faximu du feesal wi aay samay ndam wala ofriqu duma ma sotti sanaa yi sama tagg alaa man ci koo xam ne yafraxu yu fariqu wala wala yu fariqu dafay féexal inaa yi sama ndab manam duma dek dek duma jek di ñaanal wala bok buma de ñaané tam ñaan nga du sel ñeel ko xamné amul mo ben njariñ ko xamné du fessal sama ndab duma duma jek di ko ñaanal wala buma ko de ñaanal tam ñaan nga du sel duma ko tibbi sama xol duma jek itam di tag ko xamné ne ko taggee itam duma jox dara tag ku ma joxul dara amul mo ben waaj ñu neena mom du ko def de wala afriqu sana'i ala man yufarriqu inai. dadi wax ne wa man xakama ana kan moy ki àtte bi an asula ci may joxe wa tax yow ngay denc wa alina may noy wa tax yow ngay ñagas wa azuba tamay ruy wa taj mu da ngay way wa ask wa tamay tak wa tax mu da ngay fay la dedet wallahi giiñ naa ci yàlla ne bal li fi nekk kay mooy natawaasanu danañu yamonte dañu man danañu xonte fil maqali ci wax ja wasnal misqali kem màndax xek ab gorax wala bok ab poids wa nataxaasa tañuy yamo fi fi'al ci jëf ya atawannihaali kem yamoog aw daal Mune kan moo wax ne kan mo atte atte boo xam ne la muy tekki mooy yow dama lay jox yow loo am denc maanaam lu am jox la te yow loo am denc bu may bu may sama diggante ak yow ngay yow ngay ñagas ah Suma suma su ko doonee damay ruy yow ngay way ah su may ngay fay déedéet moom kay moom li am kay mooy giñ naa ci yàlla moom benn rek mooy mën a mooy da ngay mën a yamoonte ak man la ma lay jëfal nga di ma ko jëfal la ma lay waxal nga di ma ko waxal waaye euh, duma la nekk di la defal lu baax ba pare yow nga may defalu safaan loolu duma ko nangu moo tax mu ne war na taxaasa fil fi ali xasaba ni ali xataa na amana ba dana wóolu at taxaabu na xëbante ga muy naxante ga wa nag fàtte deefinu fegal atta daaxu na bañante maanaam doxale nañ ko ni te moy lan lima lay defal nga dima ko defal ci lu bax lima lay waxal ci lu bax yow itam nga makoy waxal ci lu bax su boba kenn du nax sa morom sama diggante ak yow waye tamit ak bañante mom danañ ñu ko fegal waaw non daal la gisee waye mënuma dee defal lu bax ba pare nga may lu safar mune way la budul lol falima anal ana ana lutax tax aulluka ma sungali wa tuxilli yow nga may ragal han ah? lan motax malay songali yow nga may ràggal wa oqil loo kama lay yëkkati wa tastaqil lu ni ta nga may xeeb yow fu ma toll maa ngi def lu lay yëkkati ci wax ci ak ci jëf waaye nag yow moom foo toll di ma xeeb waaw man daal mënumaa yëkkati koo xam ne moom damay yëkkati dara fu ma toll ci wax ak ci jëf waaye moom fu mu toll ma ngay def luy wane ne moom daf maa xeeb nee na wa aji tarixu may daal di may wa aji tarixu may wa aji sàkku wa aji tarixu may Eh, may sàkku làkk ñeel la may faggu wala boog may sàkku làkk ñeel la wa nga di jam hmm. wa asrahu may boy ileka jëm ci wa tusarrihu ni yow nga di ma boyal wa kayfa yuj talabu naka la dee fi ñoddee insaafun ak maanu muy koo xam ne daal ko jox àqam bi day min ci ak got naka lay naka laa lay joxe sam ak sa ba mat ba pare yow foto tollu di ma di ma wa anna tusriqu nakala la fenke samsun jant ma aghaymin andak min wa mata usxiba usxiba kagn la defe andek wudun ak tiofel bi asfin ci uh, unf wa jawr unfun wa jawrin manam dal nakala la des di andek nit sop ko bëgg ko moom tam fum toll di ko uh, di ak di tar ci kaw wa ay ana san ana san gor ana san gor radiya mo gërem bi xuttati xasfin ci cërub ana san gor mo nangu di and ak nit diko defal lu bax te fum toll di toroxal kon li dey la ko gor gi tontu xamal ko ne ko yow dal li nga wara dunde moy kula def nga def ko waye dal waroo fi nek nan nit ki dama koy defal lu bax donte damay defal lu moom dal mu gisewu ko non su ko defee la ca topp moom incha allah ci dars bii di ñëw danañ ko yeggale fii la dars bi yem in uridu ila al islah ma satatama tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu